asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñëw ci seen émission bu mag bi nga xam ne mooy laabaan ànd ceeg SPT Média macha allah rek ndax buñ ne laabaan ne taasu ma dalal kenn nag tey ci ndaanaan yi ñu koy wax Mbaye Guèye mi ngi dëkk fii ci Pikine Tali bu bees moom laa seet si tey ngir ñu waxtaanee li nga xam ne mooy laabaan xanaa nag dama koy dékk sama micro rek di ko nuyu salaamaaleykum na Mbaye maaleykum salaam soxna Bigué. maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax di kontaan ci yow. Mhm. di kontaan ci lii ngay def ndax ku ne xam ne ni day jëmale réew kanam dëgg neexul. ay ca soxna Mbayang tey nag li ñuy waxtaanee du leen rek li nga xam ne mooy laabaan te ku ne laabaan ne taasu ñu seet si la nag euh, ngay def laabaan macha allah tey ñu bëggoon a xam xale yi nga xam ne macha allah ñu ngi fi takk seen i sër ak laabaan nan nga koy dundee tey loolu la ñu ñëwoon tey pour waxtaanee ko ak fii ci tali bu bees. xanaa di ci kontaan rek di la wax ni ñay baax a ngay baax ba tey te laabaan day cosaan boo xamante ni day valeuru xale bu jigéen nee naa la ku ko xañ sa ndey rek rey nga ko ndax laabaan ba nga fa mu ne woon ba tey ndax fa ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa tepp-tepp ñay woddoo ngay woddu ba tey ndax na tubaarkaal la day loo xam ni bu ko góor fekkee ci yow rek naw la respecté la xam yaay kan tubaarkaal la ay ca soxna Mbayang ci loolu rek lay wéyal sama laaj ba léegi rek soxna Mbayang yéen a ngi dem laabaan ba léegi waaw ñoo ngi dem laabaan ba léegi de ndax nag ñay woddoo ngi woddu ba léegi ndax lu waay nàmp rek moom ngay toqamtiku te boo fi juddoo fekk nday baax baay baax yow doom dangaa war a baax xam la nga doon xam la nga bëgg ndax laabaan ba tey mi ngi am dañ koy wujji ba léegi ay co laabaan dañ koy wujji ba léegi mi ngi am tey jii su fekkoon ne tey woo nañ la ci benn xale bu tëdd boo dugg see ci kër gi naka ngay def nooy nuyoowee ah xanaa def samay façon rek ndax tubaarkaal la xale bu tëdd moom boo dee doomi bur géwal mbaa nga di bala mañ sa xam la ngay wax boo ñëwee rek da ngay daal di tegu ci temps tegu ci yoon daal di egg rek wax la nga xam ne moo la fa indi waaw xale bu ndayam yar mu tëdd kooku laay waayal xale bu tëdd te réglé boppam te woddu sëram day neex a nuyu labani laban xoolal mi ngi am ba léegi dara jógogu fi ndax ñay baax ña ngay baax ba léegi ñay woddu di woddu ba léegi dara du dindi ma ni labaani fajar xale bu ko xañ sa nday ray nga ko labaani fajar xale bu ko xañ fajar xale bu ko xañ sa nday ray nga ko eh, i eh, xoolal lay lay la laa jàng réglé réglé sa bajo man ni jàng réglé réglé sa bajo eh, eh. bàyyi leen dara de ndax data bu gisee sulu jóg te sulu bu gisee data jóg ab data dañ koy tee réglé leen lii fekke lii lii ku mu dawulu yaramam mani yaa réglé réglé sa mani jàng réglé réglé sa bajo diggante ñaari pooj akum naq góor gu ca ca yaaba yaa ko ca xajal leen ma moo ko ca xajal eh, lay moo ko yabal eh, nanu bàyyi góor ñi te bàyyi yaayi góor tax góor ñi defuñu dara eh damay nuyoo rek dama doon bippe bi ga jaay wooteeguma ayjo am na solo macha allah ni nga nuyoowee am na solo ni nga bippee am na solo am na yaakaar ne gars yi dinañ la dégg bu baax tubaar fakkaala macha allah li nga wax am na solo waaye ba tey rek damay wéyal samay laaj ak yow nga ànd nag ak eh, SBT Média macha allah ci émission bu mag bi muy def muy laabaan waa Mbayang yéen dañ leen di déplacé di leen fay. wala yéen da ngeen di dégg laa baan dem rek wala xale bu tëddee am ndaw boo dugg see naka nga koy xamee. tubaarkàlla macha allah ñun dañ ñuy woo ndax fi jamono toll bala ñoo xam sa njëg dëgg tubaarkàlla nit am bés woo la waaye boo déggee dem rek doo fa safe dañuy toog ca suñu kër yi ñu xam fan dëkk na xam la ñu mëne bu ñu xewlee wooru te xale bu ci tubaarkàlla tëdd fees dell. boo ñu woowee dañuy ñëw am cawarteg wax ci yow te nag dof dee na ngaa ko dem na yoonam bu nu nee jàkk xale bu tëdd rek xam nan ba woddu ba réglé xam nan ba ba yaayam di waxaale muy maye. am na solo macha allah am naa yaakaar ne loolu leer na ci bopp askan yi waaye nag ba tey rek Mbayang damay wéyal sama waxtaan ak yow jànq dëgg-dëgg mi ngi am ba léegi mi ngi am est-ce que yaa ngi fiy dégg laabaan ndax man gëj naa dégg sabaru fajar gëj naa ko dégg de. billaay am ba léegi. mi ngi am ba léegi ndax ku yàquwul doo yàqe tubaarkàlla ña seen nday ya baax tamal leen baax jur leen ci baax nampatal leen ci baax ña nga woddu seen sër ba tasuñu seen yaakaari nday mi ngi am ba léegi ndax toujours ñi ngi ñuy woo tubaarkàlla macha allah xale yi nag am jom lool xam la ñu bëgg mi ngi am ba léegi de ndax ñi ngi wuy ji laabaan ba léegi di fekk xale bu fees del ñu di ko waxal luy neex xolam di neex xolam ndayam muy neex-neexi Aïcha dam loo doon ñaax tey ji booy ñaax xale yi dileen gën a wax ak di gën a wax ñu woddu seeni i ak tey xale yi ak ni jamono demee ah kii yi bëri léegi euh, réseaux sociaux yi bëri ak yu bëri am ngay gis xale yi léegi ñuy wane seen i awra di def ay silibu neen di def yu bëree bëree bëri nga ciy teg seen bët tey ji yow ndax loolu mën na la may ne xale jànq mi ngi am ba tey wala lan la lan la daal ak ni nga ko gisee ak ni réew mi demee. waaw jamono moom fi ne yàqu na ndax téléphone yi defar na waaye yàq na. ndax ci ak goneem ak i xaleem am na ci xale yoo xam ne fii mu ne téléphone yi toj nañ seen bopp ba xamatuñ seen valeur ndax nag tubaarkàlla xale bu góor bu lay bëgg te la muy bëgg ci yow yomb ko du gaaw a ñëw takk la fu mu la soxlaa gis la te bëgg ci yow gis ko du gaaw a ñëw takk waaye nag ñay baax ngay baax ba tey ñay woddu ko am kersa ak bët ba tey ña ngay woddu am kersa xam fa ñu bokk xam fan jógee xam la leen war ñu di ko def ba ta suñu seen yaakaar yi nday fayewuñ seen bopp mi ngi am ba tey xale bu tas yaakaari ndeyam nan la war a mel. xanaa xale bi nga xam ne sa yaay la teg jànq rek nga nekk bopp jànq taat jeeg xam nga sa yaay du yëg li fi gaal gi téere mi ngi dee gone la yor ba tey rek ndekete sa yaay nga waxaale ngay maye rek la perte man lu ma ci man. déedéet am ah, loolu doy na waar ba léegi rek ñu ngi suñu émission bi nga xam ne mooy laabaan te ku ne laabaan ne taasu léegi dama gis yéen taasukat yi bu njëkk ba bu nit daan dañuy yóbbu ay sabar waaye léegi damay gis taasukat yi. bu nit tëddee dañuy indi ay bongo bongo bi ak sabar lan mooy différence bi. tubaarkaal la xam nga ku nekk ak bala gënal rek ndax yëpp ay rukk mu neex ndax booy laabaan yow mi nga xam ne yaay aji kii laabaan yaay xool la nga sentir rek nga woo ko ndax boo doonee artiste mën a taasu xam la ngay wax buñ tegee sabar nga wax ca kawam buñ tegee bongo nga wax ca kawam bu bool tegee nga wax ca kawam ndax tubaarkaal la dégg rek na fa ne. bu fa nee dara du la ca jaaxal bu ñu tegee kooraa sax da nga cay wax yàlla na jàmm yàgg. Aïcha mais damay faral di dégg ñuy wax naan laabaankat yi sabar yi touche moom ñuy touche dafa am lu muy def ci kii tëdd dafa am lu muy def ci ay mbokkam xale bu tëddee ñu tuusal ko ay sabar wala boog bongo yi ñëw parce que dama gis léegi ci sa commencement touchoo da nga ñëw rek ne der bongo yi topp la te damay dégg ñu naan bu xale tëddee touche mi daf cee am solo dafa am lu muy def ci moom ak ci géwal bi nga xam ne moom moo ñëw. dëgg la loolu ba tey mi ngi am ndax ñun bu ñu ci laabaan tubaar tubaarkàlla ñaare bala ñoo wax sax da ngay gis géwal ba daal di tuus ndax tuus moomee rek ay wax la day am mag mu tëdd ci dëggub lalam di ko déglu tuus moomee rek bu laabaan ja bu gone ga doonee gone rek tayam ci loxo tuus ma nga koy xamee. man ak sama invité muy Mbaye Guèye di taasukat bu mag dëkk fii Pikine tali bu bees deuxième robinet moom lañ seet si woon tey ay co xale yu tey loo ci wax. ah xale yi de damaa jàpp ni xanaa xooluñu seen nawle yu baax yi nga xam ni jigéen dara jobbu ko ndax nag góor boo ko yombee rek du xam sa valeur boo xamee yaay kan nag dina tax ñu teg la sa place te nag ñay baax a ngay baax ba tey waaye ñay bon it ña ngay bon ba tey waaye fi ñu toll nii àndandoo bi doom yàqandoo bi doom fi réew mi boo yaree sa doom ca biir kër gaat mu génn ca mbedd ma mbedd ma yàq ko ndax da ci am ñoo xamante ni xoolatuñu seeni ndey dëbbatuñu seen dëbbinu nday dañuy génn ca biti gis seen xarit bu të boo xam ne obalin càcc wala ndayam wengere la ñu roy ko ca la muy def te nag nuroo taxut a bokk nit ku baax day fonk juddoom naw deretam xam mooy kan ñay baax a ngay baax ba tey ndax xale bu ci fawee sa bopp rek tas sa yaakaari ndey loolu rek a waral jigéen ñi sonn léegi feebar yi bari na koo gis ma ngay dowaale loo xamante ni gor dafa sonn ndax léeg-léeg sa doom tas sa yaakaar rek nga koy misère rek ñu naan lu ko dal lu ko dal fekk na lala dal mënoo ko wax sab noonu ndax rek tubaarkàlla la gor di wooyee yàlla bu ko saay-saay xam xale daal war naa xam mooy kan jom la sa ndey sëy la sa ndey bañ a tas sa yaakaari ndey ndax dina tax a gone xam mooy kan ndax dina tax ki lay takk teg la palace cerel la te lu mu la defal du la jomb tubaarkàlla ay ci lum la defal dina du la jomb ci loolu rek laay doxee nga daal di mayaat ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ak di ñu déglu ndax ku nekk laabaan ne taasu ay co lay déglu maanaam ci taasoog yooyu rek bëgg foofu yeewaay sàmm réglé lii te ngeen tàccu lii jànq buy dem baal di luye taxi di walis di dem e xoolal sar xoolee fajar du ko fekk ci ndayam jànq buy dem baal di luye taxi di walis di dem ko fekk ci ndayam e mani góor ñi bàyyi yaay yi góor ñi góor ñi defuñu dara diggante ñaari pooj akub naq góor gu ca dugg ba di ca yaa ko ca xajal xoolal jànq buy dem baal di luyee taxi di wali si di dem nee sar xolle fajar du ko fekk ci lalu ndayam mën a sangu ci bu dëll mën a sàng sa gën sangu ci lal bu dël mën a sang sa data gën nanu bàyyi góor ñi bàyyi yaayi góor ñi ndax góor ñi defu ñu dara diggante ñaari pooj ak kom naq gu ca dugg ba di ca yaaba yaa ko ca xajal danga buy dem baal di luye taxi di walis di dem nee far xollee fajar du ko fekk ci lalub ndayam sar xolle e xoolal sar xolle fajar du ko fekk ci lalub ndayam eh, sar xolle eh, leen góor ñi bàyyi yaayi góor ñi góor ñi defu ñu dara de ku fi yaru ñu takk ku fi yaree di ku ñu kat la wàcceeg sanday nga diw la jëlam lëlëm ay co am na solo am na solo macha allah am naa yaakaar ayca waa soxna Mbayang ndax tey jànq bu tëddee am ndaw sër boobu kan ak kan moo ko war a gis dañ koy wane wala sër boobu nan lañ koy def. tubaar kàlla laaj nga ma am solo ah fi jamono toll de li waral tubaarkàlla xale yi sëy nekk ci néegub sëy lu yàgg duñu am doom waneeg sër googoo koy indi ndax bu nu boo tëddee am ndaw du ñëpp ko war a gis secret la boo xam ni ndaye ko war a gis ak bàjjan ak goro ba nga xamante ni moo jur sa jëkkër su ko defee muy secret boo xam ni mbóot la du ñëpp koy teg bët ndax ñëpp bokkunu yam fi jamono tool looloo indi xale yi yara dal da ngay sëy nekk ci néegub sëy baam fa fukki at doom te la ndax dañuy jël sër ku ñëw rek ñu ne la mi ngi nii di dindi tuuma te loolu du xuloo du xeex ñàkk xam la ndax lam lay lam lay indil ëllëg di la ko jural ak ay garaaw te yow mi koy def sa xamoo la tax mu tax moo tax day secret boo xamante ni diggante way jur yi nga xam ni ñoo jur gone gi ñoo ko war a gis lu demee ni goro ba ba jur jëkkëram moo war a gis sër ba bàjjanam ba nga xam ni moo koy yëkkati moo war a gis sër ba ak ndayam ja jur loolooy importance ay je loolooy toll nag dañ koy wan ku ne looloo indi jafe-jafe yi léegi waaye laabaan moom day cosaan loo xam ne du fi jóg mukk ma nga fam nekkoon buñ ko tegee fan ko war a teg rek amul benn ngaañ ay co buñ ko tegee fañ ko war a teg amul benn ngaañ kon nañu fonk laabaan te xale yi takkaat sër yi macha allah ci loolu rek laay wéy ba léegi di amal sama waxtaan ndax tey bu njëkk ba da daan gis boo amee borom kër di woddoo nalli maanaam sëru nocc yi fi amoon mais léegi xale yi dañ koo bàyyi ndax tey colin gi ñu col ci biir néeg yi doon na li gën wala du li gën ah sërub nalli de moom day cosaan loo xam ni tubaarkaal la ñoom maam ko fi bawoon te ñoom maam ñooñu ko fi bawoon ay royukaay lañ dañ daan sëy benn sëy rek benn jëkkër nga sëy ak moom ba caatlu doo fay doo tas da ngay toog ba dégg njaag xam nga li waral loolu jonge ci sa bopp yam ci sa jëkkër wóor dooy sër day li nga xam ne day neexalub sëy te nag tubaarkàlla góor ñu defuñu xam nan lay bégal seenub xol xale yi nag léegi lu fi jóge ñoo ko fi jële dañuy indi beneen juddu indi leneen loo xam ne bokkut ak sunu cosaan di sol leneen loo xam ne bokku ca tubaarkàlla la doo sërum naan le ba jamonoy baax moom la mag ñi daan def seen sëy ya di neex di barkel ñuy jur njaboot gu barkeel sëy bennub sëy sëy ak sa borom kër rek tubaar tubaarkàlla toog fa ba dégg njaag wóordoo sa seri naan la jonge ci sa jëkkër yam ci sa jëkkër tubaarkàlla la woon a ngay gari ba nëgëni soxna Mbaye loolu am na solo ba tey rek damay ñëw ci sama beneen question mooy dama gis léegi sëy yi dañoo gaaw a tas xale boo ci dégg na maye nañ ko tey bu bi dellu see ñu ne sëyam tas na ana loolu lan moo ko waral. li ko gën a indi de dara waralu ko lu dul xale yi léegi fi jamono toll dañuy seeti ji sëyiwuñu bu fekkee nag yàlla dalaa booleeg sab nawle mbaa koo xamante ni dox ngeen ba daje bëggante nga dugg ci ni damay sëyi dangaa nga lawaay goreel xam la la yóbbu nga doxal ko te yàlla rek tax yàlla boo fekk juddu fekk sa ndey ak say maam dooni sëykat sëy rek la war bul toppandoo bul roy dàq fi jamono tool na xale dañuy roy dàq xamatuñu fa nu bokk ak nanu juddoo looloo indi sëy yi léegi di gaaw di tas nit ku ne war ngaa gëm sa bopp am nawle fonk sa juddu te boo fonkee sab juddu di bañ lu bon di bëgg lu baax di nga jomba def sëy sëyub fukki fan wala sëyub weer benn weer nga tas ndax da nga ne ah man kat su ma ko defee su ma dellu see ci kër gi sama naw lay yaay yi di ko gis di ma gis ñu wax man mii ka du am sëykat te dinañ dinañu ci xas sama yaay ndax dañu naan moo ma ci yar te nit ku ne na war naa jom le ndayam sëy le ndayam te doom ju baax day tontul ndayam tubaarkàlla. Aïcha doom ju baax dafay tontul ndayam waaye tey buñ doon ñaaxaat xale yi nga xam ne macha allah ñu ngi ci beneen yoon wala ñu ngi def naka sudul noonu tey boo leen doon ñaax ak di leen digal lan nga leen di wax reer tëdd ak reer doxi ban mooy gañaa bi. ah reer tëdd de moom mooy gañaa bi ndax boo reeree doxi boo dee nit ku baax sax mën ngaa dajee ku bon mu ferewlu la yóbbu la ca la muy def te bala ngaa xam xama rey la am na ci xale yoo xam ne ba nunu danoo mutum xel. danoo àndut ak seen nawle xamuñu fa ñuy teg seenu tànk te boo dee xaleb kese da nga yomba nax tubaarkàlla boo réeree tëdd nag man raw ndax la lay rawloo ma nga ca sa néegum nday ndax boo réeree tëdd man ngaa mucc ci waaju bon ja ca mbedd ma nga xam ne xale bu ko romb ba mu walis ko rek la bëgg ba yóbbaale ko fa mu jëm def ko la ko saf te réccu dina fekk jëf wees ay co réccu dina fekk jëf weey am naa yaakaar ne loolu kàddu yu am solo la ba léegi rek ñu ngi ci suñu biir waxtaan laabaan ak taasu nga ànd ak say bongo man nag ñu dar ma nii ndax yow foo jëm da nga yóbbu ay bongo wala ki nga xam ne moom moo la woo moom mooy engagé naka ngeen di dundee laabaan bi léegi. waaw léeg-léeg yow ñu woo la ni la utal say bongo yu dar nga daal di woo say bongo ñu dar la léeg-léeg it ñu woo la ni la jarul ngay indi kenn ñun indi nañ ay sabar kër gi am nay tëggkat su ko defee da ngay ñëw rek daal di commencé dal ca la la fa indi waaye ne la man de dem sama doom ji daa tëdd man su ma sañoon nag booy ñëw nga indaaleel ñu lay tëggal nga daal di woo say bongo maan mbaa nga woo say sabarkat ñu tëggal la tuus nga defar rek defar cosaan ndax nag tubaarkàlla la woon a nga fa ba nëgëni ñay baax a ngay baax ñay def cosaan a nga koy def te cosaan dafa jara ba ci réew mi ndax fi réew mi toll li tax jafe-jafe yi bari danoo dindi suñuy aada teg ko fële di roy dàq looloo indil nag léegi sëy yi di gaaw a tas ndax toppandoo koo yamal lëngoo ko tollal mbag nit ku baax day xam ka muy àndal ak kadim nawleem ak la mu juddu fekk ndeyam ak baayam di ko def mu roy leen ca gor su baax noonu lay mel te ñay baax a ngay baax ba tey. ay baax ña ngay baax ba tey gor su baax noonu lay mel ba léegi rek maa ngi ànd ak yéen ci suñu émission laabaan toog ak sama invité bi nii ba léegi rek ñuy waxtaane li nga xam ne moom mooy laabaan ak yarin xale bu tëddee naka la ko yaayam di dundee. naka la ko waa koñ bay dundee naka la koy mbokkam di dundee ak yow mi ñëw di laabaan lan ngay yëg. xanaa kontaan rek xale bu tëddee siggil na ndayam siggil na boppam siggil na ay xaritam siggil nay xaritam ndax nag foo nee foo am soppe am nga fam noonu boo juddoo ci koñ ba màgge fa du ñàkk ñu naan ah kii de gone laa genn wàll am ñu naan du ah kii da du gone kii da yamut ci boppam ndax lii muy sol di ko summiku ndax xale képp mën na koo am aha kay ndax boo àndeek nday ju gore lool tubaarkàlla yem ci ay loxoom lu mu liggéey jox la doo nam dara doo ñee sa benn nawle lu valeur lu mu gis mu rafet mu jënd jox la nga sol tubaarkàlla waaye fi réew mi toll ñu bon ñi dañuy yàqaale ñu baax ñi ndax léeg-léeg nga gis xaleb kese di solu ba jekk di dem ak a dikk taxut a bon waaye léeg-léeg nga gis gone toog ci kër yi te taxut a baax ndax nag ku ne rek la nga nàmp moom ngay toog ko toog sax taxut a baax yàlla rek kay sàmm yàlla na nu yàlla sàmmal waaye fi réew mi toll daal man su ma sañoon xale yi xoolaat seen bopp xoolaat seen taxaween ndax nag nit ku baax la kay nawleem di nawee ca biir kër ga muy sëy moom moo koy liggéey ndax ndey bu la judduloo fam la war a judduloo ba noppi tubaarkàlla nga màgge na nga war a màgge yow yaay xam yaay kan di dugg sa ruq man la kan xam li la li nga bëgg nga di ko def ci lu baax. ay Aïcha ñu waxaat ci leneen rek xale yi bu ñu leen takkee suñu paree li ñuy njëkk a def mooy sàcc nañu leen turu sàcc nañ leen seen jëkkër yóbbu leen maanaam ñu dem feneen. xam nga nekk ak seen jëkkër rey fa semaine ba ba mu dee ñu ñëw ne tëdd nañu waa loolu moom lan moo ci seen gis-gis yéen laabaankat yi. ah man de loolu gis naa xale yi xewal ko waaye rafetlu ma ko xam nga li tax ko xale bu def rek dindi woo ndax li tax dindi woo ko foo ne rek juddoo ci koñ màgge fa doon xale bu jigéen doo fa ñàkk baat ginnaaw te boo tëddee ci sa lalum nday mbaa sa kërub goro di nga setal sa bopp. xuloo du ko dindi tontu laa ngi bañ ni ci jàkk mënuñu ci dara xam nga lan mooy tontu li tëdde ci sa biir néegum nday wala nga tëdde ci sa néegum gorow ñu yëkkati la fekk la ngay ndaw lu fees del waaye nag xale yi nag moom lu ne ñoo ko fi jëlee waaye ban ko fi jëlee ba tey nag moo waral lii am di am rafetlu ma ko te de sa néegum nday daay moom li ma gënal. Eh, waaw ma ne lii am di am moom loolu mooy lan lii am di am loolu ban façon wax la moom laa bëgg a xam. lii am di am boo gisee ma di ko wax léeg-léeg gone di ànd ak jëkkëram dem tëdd ji hôtel am fa semaine sa goro du du mas a gëm ni yow mii gone nga tubaarkàlla say njëkkee ca biir kër ga duñu ko gëm dañuy xel ñaar rek. léeg-léeg nga daagu cett ba ñu jàmbal la ko gaaral la ko sab xol di ñalli ñalli te yaa sa bopp ndax fi réew mi toll ñu bon ñi danoo yàqal ñu baax ñi boo doonee gone kese sax xam ka ñay xam-xam na ña xamul xamuñu ndax du ñàkk ku naan ah ay la yowén de dem nañ ba ñëw de lu ma ci xam ma de wóoru ma dem nañ ba ñëw daal nee nañ tëdd nañu te tubaarkàlla la la kay setal daal man daal la ma gënaloon gone bu nu ko mayee borom këram ba nuppi mu tëdd ca néegum ndayam di di tuumaam mbaa mu tëdde ca néegub goroom dindi tuumaam fa mu sëyi ñu yëkkati ko fekk mu fees dell ñu laabaan ko defal ko ca aada ak cosaan ndax du fi jóge muk te ña ko fi téye ba tey di ko def ñi ngi am lu baax ñi ngi ciy gis lu baax ba tey ndax day li nga xam ne mooy sunu cosaan di li gën ci ñun ayco mooy sunu cosaan di li gëm ci ñun defe naa ni eh, kàddu yi leer na naa ñi eh, waxtaan bi am na solo macha allah mais rek dañuy wéyal tuuti waxtaan bi su ko defee rek nga daal di tàggatoo ñu daal di tëj macha allah ci émission bu mag bi nga xam ne mooy laa laabaan lan ngay ñaax xale yi lan ngay ñaax xale yi tey nan la xale war a mën a def ba mucc nga ñëwaat ci loolu rek ñu daal di tëj. xanaa nag di leen wax ñu gën a góorgóorlu rek mm-hmm. di xool ci seeni ndey la ñu daj cib sëy yaay dafa sonn lool ci doom. ndax ëmb juróom-ñeenti weer boot ñetti at doom ja màgg te la sab xol du neex te boo sañoon boo juree sa doom moo fay gën kenn bëggul ku la gën waaye boo sañoon sa doom gën la te xam nga nan la la sa doom di gëne di wéy ci ndigal di bàyyi tere wor du xam mooy kan ndax raw bàjjo bi certificat la ci say diplôme la ci boo ko xañee sa ndey xañ ko say bàjjan xañ ko sa bokk deseetoo dara ci sëy ay co delluwaatal ci loolu raw bàjjo bi sat fi kaala ci seydi la ci raw ba bi sat fi kaala ci seydi polom la ci eh raw tuuti la boo ci dundee dund di dundal sa dara du des ak ndaw ndaw tuuti la boo ca di dundal sa ndey dara du ca des ak ndaw xoolal ndaw tuuti la yeewaay da yaa ngi may gaañ ci xol bi lan la doo toog woon du yow doo toog lii la naati la doo toog. Aïcha am na solo loolu am na solo ndeysaan Aïcha ba tey rek ñu ngi ci émission bi lan mooy say kàddu tàggatoo. xanaa nag di ñaaxaat xale bu baax di leen wax nag tubaarkàlla yàkkamti yàqule dara weesuwul te nag jigéen jar na lu ne jigéen bu xamee mooy kan. jigéen dara jomb ko jigéen dafa am valeur nga lawaay waay xale bu jigéen na nga wor du sagal sa bopp sagal sa ndey tubaar kàlla tontul sa nday ca ay noonam fi réew mi toll xale yee war a xeexle seeni ndey xool lañu daj cib sëy jamono dafa metti juddu fekk say ndey di muñal sa baay nga màgg war a dëbb sa dëbbiinu ndey nga xool feneen roy leneen tas nga sa yaakaari nday rey nga ko paaka du rendi nday jaasi du rendi nday xam nga luy di nday nga war a dégg waxam te lool mooy di nday di dox sa dox boo xamante ni tubaarkàlla yëgu ca tinu ca te fu mu ko dégg xolam bay jeex lool muy ngiir rek di jeex ñu naan lu ko dal waaw doom day ray ndayam te du ko yëg doom dina xeex le ndayam ci kaw mu gore xam mooy kan xam li mu bëgg fun ko tudd ay doomi diw ja ñu ne aka baax ñëpp a koy bëgg a jur waaye boo bonee sa yaay rek a lay jur moo tax jigeen war a xam mooy kan xam la mu bëgg ndax nag boo woddoo sa sër sàmm sa bopp sa jëkkër dina la bëgg respecté la say goro fonk la sa goro sa say njëkke teg la place te loolu yaa koy xeexal sa bopp moo tax ma wax la léegi rek raw bàjjo bi certificat la ci say diplôme la ci boo ko amee tubaarkàlla macha allah fa ngay sëy sëy sët ba sëy sëtaat day loo xamante ni du fay mukk da lay topp bu nee diw ñu ne aka baax aka yaru fii ci biir kër gi la tëdde woon sa jëkkar naaw la teg la place ay ku ko xaj sa nday ray nga ko ay ca kontaan nañu tubaar fakala macha allah eh, kontaan noon nañ tey jii dalal ki nga xam ne mooy Mbaye Gueye dëkk fii ci Pikine tali bu bees deuxième robine di laabaankat bu mag tubaar fakala ku ko dégg ku nekk xam ne kaddu yi am na solo wax ji am na solo tey nag suñu émission bi am naa yaakaar ne fii lañ koy yemale rek ci beneen numéro ak beneen artiste beneen taasukat ba beneen yoon waaye di gërëm bu baax nag ki nga xam ne mooy aram nayal aram mu Serigne Fallou nekk foofu ci centre commercial Khadija fii ci marché 5 nee naa ko tubaar fakàlla macha allah yëre góor yu baax yi moo koy dagg waaye yëre jigéen yu baax yi moo koy dagg moom aram mu Serigne Fallou nayal maa ngi koy sant bu baax bu sañ sa bi jekkee moom la waaye di gërëm bu baax Mbaye Gueye mi nga xam ne nee naa ko mooy espace beauté greffage yu baax yi moom la rek moo ci jàpp ci combat bi bu baax maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di leen wax ne leen beneen émission ak beneen numéro ak beneen taasukat léegi léegi incha allah.